اكتياليتي ابكات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تيدي لكات جي 2024 دي القمص نيو غين ليغا خامتاني موي لي غنا فاستي خبار كان خامتاني موم لا ني تودي فايس دويري موم موم غا خامتاني موي اكسبير ميليتير بوم خام دماي نيك تي الجزيره ما خام لي دي جامونو بيغا خامتاني لا ني واخ نيكات دا ام اك ديغوغوي واجي ام تي ديغنت حماس اك حزب الله ak eh, Israël pour maanaam li nga xamante ni mooy eh, prisonniers yi nekk ku nekk ci loxol moromam ñu am ak weccoo gu ci am nee na li nga xamante ni mooy vidéo yeey jógee fee nga xamante ni mooy Gaza kat eh, day wane ne ñii nga xamante ni kat ñoom ñooy ñoom ñooy muqawama bi mooy résistant yi ñoom kat ñoom la seen loxo féete kaw takat ninga khamanteni xamante ni reality bi day wane ne Israël kat li nga xamante wax ne kat moom jege ko lool pour maanaam Hamas nee lol loolu safaanoon je ak dëgg ji jamono bii jamono ji ñu toll nag lu toll ci téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ña nga xamante ni ñoo dëkk Gaza kat ña ngay e, ñoom kat dund nañ lii nga xamante ni daw làqu seeni kër dem ci ki nga xamante ni moo xam ne loolu nag mooy ki jiite bureau bi nga xamante ni moo gàlloo lu jëm ci wàllu coordination ci lu aju ci eh, mbirum eh, àq ak yelleefu doomu aadama nekk foofu noonu ca ca Palestine muy Orcha Andrea eh, Orcha Andrea di Dominico mooy xam moo xam ne loolu nekkat lu toll ci million bu teg juróom-ñeent juróom téeméeri junne ci ay waa Gaza kat gën caa néew kat maanaam ñoom génn nañ seeni kër Eh, jamono bi am na ñu xamante nii nag maanaam li ñu daw làqu depuis octobre léegi bàyyi seen kër dem ci yeneen bërëb man na ay fukki yoon jamono bi nga xamante ni mi ngi tolloog nag ay eh, kii ñuy eh, actualité 1 ba 4 jamono bi nga xamante nii kat benn responsable israélien mooy xam ne mooy xam xamle tomb yi nga xamante nii kat moom la tontu bi Hamas tontu ci lu aju ci proposition boobu nga xamante ne moom lañ tegoon ci loxoom pour lu aju ci weccoonte ay ay prisonniers euh, benn responsable Israël mooy xam mooy xamle tomb yi nga xamante ni euh, moom la làmboo jamono boobu nag am na ay woy daw dox ñaxtu yu xamante ni fee ca Tel Aviv ñu ngi baare baare woon yoon ba mu doon xam ne ne kat lii nga xamante ne moom la Hamas tontukat loola bokk ci pour maanaam ñu arrêté guerre waaye nag loola moom Hamas génn na daal di koy weddi xam ne loolu moom amul tey jii de mooy xam ne ne de euh, sànni na lu weesu ñaar téeméeri euh, missile muy roquette yu xamante ni jëlee na ko sànni na ko fee nga xamante ni mooy ca mooy ca mooy ca euh, Israël loola nag euh, bërëb ya nga xamante ni mooy yi ca gën a loru mooy fi nga xamante ni moom la ñu tuddee jëlilul anla wal adna wal garbi ak juulaan ak ñaari gox yi nga xamante ni moom la ñu tuddee nahaariya ak hakka saahiliya euh, mooy bërëb yi gën a loru ci euh, ñaar téeméer yi kii yooyu nga xamante ni misil yooyu nga xamante ni Hizbullah sànni na ko tey gannaaw bi nga xamante ni euh, am na ñu xamante ni kan ñoo ngi doon manifester fii nga xamante ni mooy ca mooy ca euh, parlement bu kii bu Australie ba dem am ñu xamante ni àgg nañ ci yéeg ca kaw parlement ba sax ñoom ñoo doon xam le ne kat lu commencé ca géej ga. waaye ba ca eh, li commencé ca dex ga ba ca géej ga nee na Palestine kat dina nekk lu xamante ni dinañ ko libéré nee na te amul benn jàmm boo xamante ni mun naa am kat ci suuf su xamante ni dañ koo dañ koo sàcc loolu liñ ci jublu mooy lan mooy lii nga xamante ni moom la Israël wax ne mooy kii kiyam mooy euh, euh, carte kii am carte am muy euh, xaritaam loola kat maanaam li nga xamante ni moom la làmba mooy comme niñ koy waxee min minan minan niil ilal furaat loolu lañ jublu ci lool mooy day jógaa day commencé la nga xamante ni mooy ca niil ba loola ñu jublu ci Égypte ba keroog muy àgg fa nga xamante ni mooy ca Irak loola nag ñoom la leen gaa yi doon xam ne ne de maanaam Palestine kat balaa ngeen a àgg foofu kat Palestine moom dana nekk lu xam ne moom la ñuy libéré ba mu daal di jot jàmm te ñu leen ñu leen di xam ne nag xamal ne kat ne yéen ñi nga képp koo xamante ne da ngaa sàcc suuful jàmbur jéem faa dëkk kat nee na loolu moom munoo am jàmm te lii nga xamante ni mooy crime de guerre yi nga xamante ni moom la Israël génn eh, eh, def kat loola moom munul mucc mukk ci ba ba munu cee mucc ba nga xamante ni yoon du ci am du ci am wàll fu mu jaar rek ñu yóbbu ko ci yoon ki nga xamante ni kenn la ci bureau politique bu Hamas muy docteur Basim Naim moom de mooy eh, weddi li nga xamante ni moom la Israël wax ne kat te loola dafa nekk ak war gu xamante ni mooy waaj a am li Israël wax ne jamono bii kat eh, arrêté eh, guerre bi moom maanaam dakkalante jokkalante dakkal jokkalante ci wàllu ngànnaay moom loola bokk ci li nga xamante ni mooy accord mooy déggoo gi nga xamante ni moom la ñuy waaj amal loola nag mi ngi koy koy dàq ne tontu moom mooy ne dañuy dakk dakkal eh, kii bi eh, bombardement yeeg lépp loo xamante dafa jëm ci kii dafa jëm ci xeex Kataybul Qassam moom mi nga xamante ne mooy el armée bu Hamas mooy xam le ne de Hamas tey kat tey eh, mooy déclaré na Hamas kat tey ci alxames ji ne am na benn force Israël bu xamante ni kat song nañ leen loola nag ñu la amal benn benn nde eh, kii ndëgg sërax bu xamante ni moom lañ leen tegaloon bu xamante ni bu ñu préparé lool la nga xamante ni mooy ca quartier bu quartier bu Soudan ya nekk fi nga xamante ni moo nekk ca penk bu penku bu Gaza te am na ay itam ay char de combat yu xamante xamante ni attaqué nañ leen song nañ leen ca bërëb booba jamono bi nga xamante nii nag euh, armée bu Israël mu ngi comité continuer ba tey di def jëf ji ñaaw jooje nga xamante ni moom lay def mooy fekk ay nit ñu nekk ci benn bërëb mu daal di leen lare daal di leen faat euh, ci benn opération bu xamante nii kat ñoo ngi ko tuddee ñoom waa il mooy taw bu rëy rëy rëy ci ay euh, ci ay kii missile armée bu Israël de mooy xam la ne kat am na benn euh, kii nga xamante ni moom lañ teg togtal ci euh, commando bi nga xamante ni moom la ñuy tuddee moo nekk fee nga xamante ni mooy seen front front di nord ba li mu ci jublu nag mooy seen diggante Hezbollah ñoom tey tey faat nañ ko jamono bi nga xamante ni gis nañ lu toll ci ñaar téeméeri missile yoo xamante ni kat sànni sànni euh, sànni nañ ko seen dëkk ba ki nga xamante ni ben benn kii la benn réalisateur la ñu koy tuddee xaani Abu Assane mooy xam la ne jamono bii de amul kenn ko xamante ni ñeme naa yëkkati lii nga xamante ni mooy turu Palestine di ko tudd fee nga xamante ni ci Hollywood Hollywood nag buñ ko waxee mooy kër kër ga nga xamante ni wala bërëb ba nga xamante ni kat fa la ñuy film film américain yi nee nag loolu dem nañ ba nga xamante ni ñoom ñoom ña nga xamante ñooy ay réalisateur sax mooy ñi nga xamante ni ñooy film film yi am sañatuñ tudd lii nga xamante ni mooy Palestine ndax kat jeng gi nga xamante ni moo am ci euh, nguuru Amérique ak ñëpp ñu xamante ñu ànd ak ñoom jeng jëm ci jëmale ci côté Israël kataibul qassam mooy xam le ne dee euh, mooy wonekat ay kii yu xamante ne ay vidéo yu xamante nii kat ne xeexkatam yi tey am na kii bu xamante ni armée bu euh, kii soldat yu Israël yoo xamante ñu porox ndollu woon fee nga xamante ne mooy ca quartier Soudan ya ñu daal di leen wàcce ñoom ñëpp daal di leen daal di leen faat ki nga xamante ne mooy Yoav Galan moom mi nga xamante ne moom la ñu dénk euh, wàllu armée ci nguuru Israël mooy xam la ne de jamono bii ñoom jot nañ lii nga xamante ni mooy tontu bu Hamas bu tom aju ci weccoo lu jëm ci wàllu wàllu wàllu prisonnier ba ñoo ngi jàpp ne kat balaa yàgg bu dee Israël defut maninam ci wor ga nga xamante ni moom la daan wor ak euh, wax lu amul ga xamante ne moom la daan wax amul jàpp nañ ne maanaam kat mun guerre bi mun nañ koo dakkalagum ay fan waaye mun nañoo weccoo lii nga xamante mooy ay ay gagné euh, ba tey ar kii gouvernement bu Israël moom kat mooy continuer di fexe maanaam di changé lii nga xamante ni doxalinu mbir ya fee nga xamante ni mooy ci dafal garbiya Euh, loola nag mu waral ay kii yu xamante ni euh, ay loraange yu bëree bëree bëri yu xamante ni kat kii na euh, mu ngi koy mu ngi koy waral foofu ca dëkk booba ca ca gox booba ndax kat tey jii ni dañoo kii dañoo dëggalaat ne kat am na plan bu xamante ni préparé nañ ko war a tabax lu toll ci juróomi junne ak ñetti téeméer ci ay kër ci ay seeni colonie yooyu nga xamante ni ñoo nekk foofu ca dafal xarbiya jamono boobu nga xamante ni kat ñoom ñi ngi kii ne ñi ngi fexekat gën a baral mbir yi ci maanaam yaatal li nga xamante ni mooy dëkk dëkkuwaay dëkkuwaay yooya lii nag nekk lu xamante ni kat waa Palestine niñ ko gisee mooy na kat lii mun naa uh, doon lu xamante ni jàmm sa ko mun na ko ay responsable yu mag yu nekk ci bureau bu Benjamin Netanyahu ak ay nit ay individu yu xamante way woy taral lañ ñoom kat ñooy kii ñooy uh, jàppalante ci jamono bi pour manam bañ a kat maanaam lii nga xamante ni moom lañ yaakaar nekkat ak dig ko mun naa am loolu ñu jëm ko gàllankoor loolu moo tax ki nga xamante ni benn bindukat la bu ñuy wax de euh, Ronin euh, Bigerman moom mi nga xamante ni kat ku jege la lii nga xamante ni mooy ca bërëb bu ñuy jëlee dogal ci lu jëm ci wàllu militaire ak wàllu sécurité ak wàllu renseignement mooy xam na ne kat ba njëkk maanaam euh, tontu Hamas bi di agsi kat fee nga xamante ni mooy ca kii ga mooy ci loxol waa Israël am na ñu doon jéemkat pour maanaam arrêter lii nga xamante ni mooy jokkoo ga dox seen dox seen diggante waaye de ki nga xamante ni mooy eh, correspondant bu Al Jazeera mooy xam la ne de teykat dégg nañ yi nga xamante ni mooy mbiib yooyu wala jóolal yooyu nga xamante ni moom la ñuy rëkk kat pour maanaam eh, waa Israël daal di daw dugg seen bërëbu làqookaay teykat dégg nañ ko ci bërëb bi nga xamante ni moom la ñu tuddee Kiryat Shmona ak fi nga xamante ni mooy la ko wër fee nga xamante ni moo nekk ci Jalilul la loola nag nekk ci fi diggante eh, dëkk diggante dëkk saay saay sa ak fee nga xamante ni mooy mooy Liban Eh, ki nga xamante ni moom mooy amir bu Qatar mooy Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani moom kat mooy eh, xamle jamono bi nga xamante ni mi ngi doon taseeg eh, Benyamin Netanyahu mi ngi doon taseeg Vladimir Poutine ne ñoom li nga xamante ni moom la ñuy dox jamono bii mooy fexe maanaam guerre ba nuñ ko dakkalee waaye amal ab waxtaan diggante ñi nga xamante ni mooy waa Hamas ak ñi nga xamante ni mooy ñooy waa Israël loola nag ñu amal ko ci ay nit ñu xamante ni ñooy dox seen diggante ndax Hamas ak masa ak eh, Israël moom duñ wax mukk jokkalante ci ci ci kàddu ndax ku nekk dafa eh, nanguwul sa morom ak nekkam ki nga li nga xamante ni mooy canal 12 nekk fene ca Israël moom de moo jëlee ci benn responsable bu mag muy xam le ne de lii nga xamante ni kat mooy tontu tontul Hamas bi jamono bi kat day dafa nekk lu xamante ni kat euh, lu luy dugg la maanaam luy yàq la lu jëm ci wàllu sécurité bi nga xamante ni moom la Benyamin jàpp Benyamin Netanyahu jàpp ne kat maanaam moom moom lay kii moom lay moom lay moom lay sàkku actualité 1 ba 4 actualité un ba quatre gannaaw bi nga xamante nii nag euh, ton euh, kii Hamas Israël jot na tontoom ñiy laaj manam ana lan mooy li nga xamante ni moom lañ war a mën a déggoo déggee ci li nga xamante ni la Hamas wax ne kat xalaat yi nga xamante ni moom la amoon jox na ñi nga xamante ni ñooy ñooy yi mooy ñi dox seen ak Hezbollah ak Israël loola la ñuy di xam ne ne kat Hamas kat li nga xamante ni moom moom la moom la wax lii dafay nekk loo xamante ni kat mun na don jamono bi léegi pour Israël génn ci dina xaw jafe ci mom ndax kat lépp loo xamante ni waroon na ko def na ko def na ko ba pare loolu mooy vidéo ba nga xamante ni moo nekk ñaari minutes yu teg 29 secondes ci eh, vidéo bi ci topp mooy bi nekk 4 minutes booba dee li nga xamante ne mooy média bu Israël ñoom ñooy xam le ne de jëlee ci ñeenti njiit yu xamante ni kat dañoo jiite ay kii ay eh, bataillon foofu eh, militaire fee ne ca Gaza ñu xam na ne jamono bii nga xamante ni moom lañ nekk kat lii nga xamante ni mooy seeni soldaar soldats ya nekk ca foofu di xeex kat ñoom dañoo nekk ñu xamante ni ñu sonn lañ ba tàyyee ci li nga xamante mooy tas tàncar lañ lañ def ci li nga xamante ni mooy service militaire boobu boobu nga xamante ni moom lañ continuer di ko def lu mat juróom-ñeenti weer ñoom daal amul kenn ku xamante ni gën na leen a bëgg lii nga xamante ni kat mooy mooy guerre bi arrêté loolu mooy vidéo bi nga xamante ni moo toll ci 4 minutes. waaye vidéo bi nga xamante ni mooy bi ci topp bi ci topp loola kan mooy bi toll tam ci ñeenti minutes yu teg douze loolu li muy wax mooy kat gàllankoor yi nga xamante ni moom la waa Gaza di jànkoonteel ci maanaam lii nga xamante ni mooy lu aju ci eh, ndimbal ya àgg fee nga xamante ni foofu la foofu la war a àgg loola nag séddale ko ci ñaari mbir ñaari ay gàllankoor yoo xamante ni mi ngi jógee ci côté Égypte eh, waa Égypte bi waaye côté beneen gàllankoor bi jógee ci fi nga xamante ni mooy côté bu côté bu Israël mooy xamle loolu nag mooy kii nga xamante ni mooy directeur euh, bureau ONARWA waa yàgg nañ leen koy wax mooy organisation boobu nga xamante ni moo jokk ci mbootaayu xeet yi te yëngatu ci li jëm ci wàllu ndimbalante ak xeetali ak ci wàllu dund ci feene ci Palestine euh, ki ki leen nekkal Gaza na koy tuddee Inas Hamdan euh, moom moo moo moo ci mooy ci tontu foofu jamono bi nga xamante nii nag maanaam ñu ngi fexe maanaam nu jàmm amee Israël kat mu ngi continuer woon bombardement yu métti yi nga xamante ni moom la doon bombardé ba nga xamante ni vidéo bi nga xamante ni moo nekk moo toll ci une minute cinq secondes da ngay gis maanaam saxaar su métti soo ak jaxasoo gi xamante ni moom la nit ñi jaxasoo ci maanaam euh, kii bombardement yooyu noonu bombardement yu métti yooyu noonu ak euh, daw làqu yi ñi nga xamante ni coono bi ñuy dund ci jamono bi nga xamante ni kat Israël mu ngi bombardé ci ab ab école boo xamante ni ña fa nekk xeexuñ waaye waaju ñoo xeex waaye kan ñoom ay daw làqu lañ dañoo jógee seen bërëbu dëkk waaye ñëw ci école yooyu jàpp ne kat mën nañ faa amee jàmm waaye kat euh, gars yi nekk fa di leen di leen gën a finnaal actualité en